wallaay Baye Cheikh dégg naa yàgg naa Ndiaye àddoon <laughs> dañ lay xale yi gis nañu Ndiaye de dégg naa Ndiaye ku bëri fit la. ay waay <laughs> ku la jege sax bu xeel la. non Pape Doudou daa mën a siiwalaate rek. ah man tiit Ndiaye ànd ak yow di xëbal nit ñi mais Ndiaye il est incroyable. ah non Baye dañ doon fo noonu rek. pour da ngeen doon fo rek dañ doon fo noonu rek bu dul ñàkk de <laughs> waaw kay. allez qu'est-ce que tu nous proposes ce matin Sophie. ba Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit yi ñu seetaan nag comme ni ñu koy defee à chaque fois andil leen rek euh, benn plat boo xam di ngeen ko mën a reprendre seen i biir kër euh, tey nag euh, ay poivrons farcis aux saucisses de poulet laa andi comme ni ñu ko gisee ni commencé naa li nga xam ni mooy mise en place au plat du jour bi déjà dinañu soxla pomme de terre. poivron rouge euh, gruyère am naa fi tamit benn sauce boo xam ne defar naa ko benn sauce fait maison am na li nga xam mooy saucisse de poulet bi am nañu persil oignon ak quelques épices yoo xam ni moom la ñuy jël nag euh, mélanger ko defar li nga xam ne mooy euh, plat du jour tey bi damay ñëw rek taal li nga xam ni mooy gaz bi rek mën a rissoler tuuti rek suñuy saucisse yi nga xam ni dagg naa ko saucisse yi nag bu la neexee mën nga ko changé def jambon wala soit nga jël émincé de bœuf wala nga jël fois farcir ko ci li nga xam ne mooy poisson mais tey man euh, saucisse de poulet laa jël déjà nii gis nga rek dama ko dagg rek euh, en petit dé comme ça mu mën a ànd ak li nga xam ne mooy euh, pomme de terre bi ak fromage bi déjà def naa trait d'huile rek ci li nga xam ne mooy poêle bi comme li may wax chaque jour rek booy togg toujours da ngay bàyyi xel ci diwlin bi parce que huile bu bari baaxul cholestérol beeg yooyu noonu yëpp da koy da koy andi moo taxit trait d'huile rek laa def ñëw sotti ci li nga xam ne mooy. saucisse yi mën ko sauté moom xam nga bu la neexee mën nga koo lekk nii sans pour autant nga rissolé waat ko mais boo ko rissolé ak tuuti persil ak huile wala soit du beurre da koy gën a euh, jox li nga xam ne mooy goût fii nag euh, am naa fi pomme de terre lii dama jël 4 à 3 euh, pomme de terre moom tamit ma émincé ko ba mu sew def ci tuuti épice mooy curry ak tuuti herbe de province moom laa mélangé nii ci kaw nga xam ne dafay relever moom it li nga xam ne mooy goût bi damay ñëw sotti ko rek mu fekk ji li nga xam ne mooy suñu saucisse yi jiital voilà gis nga nii rek ñu daal di koy euh, bàyyi rek mu àndandoo ak moom tuuti am naa de l'autre côté aussi persil boo xam ne moom it dama ko ay dama ko assez boo xoolee samay togg tout le temps dama ciy def li nga xam ni mooy euh, persil ni muy joxee couleuru lekk bi noonu la baaxee ci suñu wér gu yaram moo tax toujours bien sûr euh, ex mën nga ci def tuuti euh, jinjeer bu frais bi wala en poudre bi boo ci am rek boo ko ci defee dina relever goût bi te dafay baax tamit ci li nga xam ne mooy suñu wér-gu-yaram ku xam euh, ku nekk rek ex xam na ni jinjeer li dafa baax ci wér-gu-yaram déjà nii rek ñu am fi benn sauce boo xam ne fait maison la sànq laa ko defar ak sauce grenadine bi moom laa jël tuuti légèrement def ci moutarde ak tuuti beurre moom laa jël defar ko bi ma paree nag laa jël tuuti aay aussi laal ko ci aay bi tamit dafa baax ci suñu wér-gu-yaram moo tax tout le temps dañ ko waral di def ci li nga xam ne mooy suñu togg bi ma defee ay bi nag ba pare ma jëlaat persil émincé waat ko ba mu sew def ko ci li nga xam ne mooy euh, sauce bi moo ñu jox nag euh, résultat bi damay jël 3 euh, cuillères à soupe daal di ko ciy rajouté nga xam ne dafay ànd ak li nga xam ne mooy saucisse beeg yooyu bu baax a baax voilà gis nga nii rek ñu relevé waat ko rek suñu pare ci loolu nag am naa fii oignon damay ñëw rek euh, jël benn soble soble bi moom bëgguma mu ñor de trop parce que damay bëgg euh, boo koy lekk nga di ko ci sentir parce que mooy génne li nga xam ne mooy euh, guubi bi voilà gis nga nii rek voilà mën nañ ko xooli nii daal di sotti nii rek ci à côté mën nañu débarrasser plat bi su ma paree moom dama koy dagg rek en petit dé moom tamit voilà nii rek laa koy def daal di ñëw rek sotti ko ci gis nga bu ma ko ci sottee nag damay ñëw rek yeggali li nga xam ne nag mooy mélange bi su ma ci defee oignon bi rek automatiquement dama koy fay bàyyi noonu pour soble bi euh, joxe goût bi nga xam ne moom tamit moom la am ci suñu farce bi nga xam ne moom la ñu am tey lii nag bu la neexee mën nga ci euh, comme que temps yi haricot vert am na mën nga ci def euh, tuuti haricot émincé ko moom tam ba mu sew pourquoi pas nga am tuuti carotte tamit daal di ko ci sànni tuuti nga xam dafay gën a relever li nga xam ne mooy goût bi suñu paree nag hors du feu la ñuy jël li nga xam ne mooy moitié fromage bi ba benn goût boo xam ne da koy euh, relever ci li nga xam ne mooy farce bi ñu defar tey voilà gis nga nii rek mu nekk benn farce bu simple ñu jël rek plaque bi nga xam ne day dem au four moom tamit dañu ci def euh, tuuti beurre mu daal di fondre comme ça ñu ci tegee poivron bi euh, du du du collé ci suuf pour ñu mën ko génnee gis nga poivron yi nii rek dama ko dagg en dents de loup daal di koy vider dindi pépins yi ba mu set damay ñëw rek li may def mooy. farcir ko jël farce bi rek daal di ciy def lii nag comme li ma waxoon sànq rek bu la neexee euh, man saucisse de poulet bi laa jël mais mën nga ko changer ak viande hachée wala émincé de bœuf wala ça dépend yaa boo amee fois nga émincé ko ba mu sew sotti ko ak say haricot vert ak yooyu comme ça mu mën a euh, génnee beneen goût ak beneen couleur parce que togg bi tamit euh, goût bi ak couleur bi def ci am solo lool voilà gis nga nii rek ñu remplir. jëlaat beneen poivron toujours rek ñu continuer même opération voilà farcir ko def nga nii rek ñu terminer waat jël beneen poivron rek farci li nga xam ni mooy poivron yi gis nga nii rek ma tegaat ni gis nga bu ñu defee ni nag am nag lii dañuy rek ñëw jëlaat ci soos bi nga xam ni moom la ñu defaroon sànq daal di jël rek arrosé ko tamit tuuti ci kaw voilà gis nga nii rek ñu am ay entrée yoo xam ni ça donne envie de manger lii déjà farce bi ñor na poivron yi kii na juste dañ koy dugal ci four bi euh, fromage bi ñuy sotti ci kaw rek pour mu gratiner euh, ñu am nag euh, benn couleur jeu de couleur bu rafet boo xam ne gis nga fromage bi rek laay jël terminer ko ci kaw li nga xam ne mooy poivron yi comme ça bu duggee ci four bi gratiner am couleur ñu daal di koy génne ci kanam nag ñu jàll ci li nga xam ne mooy dégustation plat du jour bi ci de l'autre côté aussi dama defar ay pain de mie laa jël Euh, jàllale ko ci li nga xam ni mooy euh, poêle bi comme ça ni mu am benn aspect croustillant lii su génnee ci four bi moom la ñuy teg ci kaw pour aspect décor bi ak li nga xam ne moom mën nga ko boole ak moom lekkaale ko ak euh, moom Baye Cheikh li nag moo nekkoon plat bi nga xam ni moom lañ leen présenté tey dama koy dugal ci biir four bi rek 10 minutes fromage bi daal di gratiné ci kanam nag ma génnee ko andi ko ci plateau bi ñu jàll ci dégustation bi Baye Cheikh. voilà